vingt-quatre mille janaba ñoo installé wu sa kaw mhm. moo tax nitu yàlla yi di am kës fu boobu boo amee ba dañ mhm. parce que dañuy gis sax yooyu sa kaw mhm. léegi loolu tànka seetul loolu mooy ba tànk seetul rek mu ngi takk sa kaw te day installé ay jàngoro ci sa yaram moo tax nit ñi ngeen war a leeral loolu xam nga côté boobu scientifiquement nit dafa am loo xam ne da koy comprendre da koy xam mooy dafa am loo xam ne bu xasee génn ci yow sa lépp ubbeeku na sa seetu sa rideau bi nga xam ne doxoon na sa sa diggante sa borom am na rideau fi dox xam nga wax naa la keroog ni liy waral sangu seet yi nit ñi xam nañ ko mooy euh, euh, euh, mujj baatul xuddu faqatul di jigéen su amee règle day sangu ji bu fekkente ni deretu wasin mi ngi ci moom day sangu ji seet muy ñaareel bi beneen bi wa min man niyin xaarijin bi lazatin muxtaadatin fi naw min aw yaqzatin man niyu la ci laal la boo xam ni bu ñu xam la bu ñu ràññee la su boobaa dangay dem sangu ju set beneen bi mooy néew bu ñu koy sang sangu set lañ koy sage aw man aslama ak koo xam ni dafa tuub dugg ci biir lislaam su boobaa kooku dañ koy sang set waaye daf ci am yoo xam ne ay détails la ay sew sewaan la yoo xam ni ñun ñoo ko war a comprendre xam ko soxna Fabel l'essentiel nañuy na nañuy set dañuy set gis nga seddaay bu dikkee lay li kii di wax nii seddaay bi lay gën a am moom fi mu mujjee daal dafa am solo ba nga xam ne waaye malheureusement waxtu bi mhm. euh, moo moo moo ñu ko mayatul ndax ci mag ñi sax dañuy wax jigéen bu mhm. setul mhm. Euh, même bu toggee jox njabootam wala mu jox borom këram yooyu yëpp mën naa andi ay gàllankoor ci aada ci aada bu dee côté aada donc gàn gàllankoor yi ci ne sax dafa bari dafa bari waaw mais bu dee diina du tee nga mën a jox sa borom kër bu dee diina mën ngaa jox sa borom kër ak sa njaboot mais kenn rafetlu ko kenn rafetlu wu ko mu am solo loolu oustaz Souleymane Diaw amoon nañu mbégte ànd ak yow it. soxna Khady Kayta Kayta Tiwaawan mi ngi lay nuyu. soxna Khady Kayta nee na mi ngi kontaan ci sa plateau yow ak Moustapha Diop ak euh, Gomis. ñi ngi koy fay ñi ngi koy fay di ko fóon bu baax a baax Fanta Suguna. amati na solo macha allah waaye dafa mel ni rek chaîne la dañ koy yeggaliwaat. ci kàttanu yàlla incha allah. waaye Fabel di jox euh, dig daje. Mhm. maa ngi gërëm ñi nga xamante ne mooy sama mhm. famille euh, papa xarama euh, ami makalu madame Silla euh, di gërëm di ziare ki nga xamante ne tey maamam moo war waral lii mooy euh, maam Ousmane si depuis Tivaouane doomu xalif bi mhm. maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziare si Malick di la jox sa wàcc waaye bu ñu fàtte si ñaan du ñu fàtte incha allah jërëjëf oustaz li ngay ziare dama da dama la koy laaj bu gàtt ah, rek li ma ci tontu ma ci dafa am ñu ñuy dégg ñu wax naan boo duggee boo amee sobe dugg mhm. ci géej mhm. boo sooboo ba sa lépp tooy rek sobe gi yëpp wàcc na la est-ce que loolu am na waaye dafa am sew sew bu new bu ci ne. am na sew sew bu sew sew bi mooy par force da ngay tàbbal yéene ni maa ngi sangu set. ah boo tàbbalee yéene. nga tàbbal yi mën ngaa soobu. soobu ba sa yaram mais koy def ci saa la war a wax ne yéene bi. déedéet. sangu set mm. ñu bari dañ naan la sax boo egsee ba ci sa awra mm. ñu bari wax nañ ko uh-huh. téere yu bari bind nañ ko waaye du yéene rek waaw yéene yéene damay sangu ji set damay sangu ji set yéene foog mu tàbbi lu amul yéene loolu du dox lu amul yéene rek waaw lu amul yéene loolu du loolu loolu du dox ah, waaw kon oustaz leer na jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu jaajëfal bu baax di nuyu nag di nuyu nag police policière centrale commissaire central ñoom euh, astulokoor may mun a ñoom ñëpp rek <laughs> <laughs> ñàkk kersa alors jërëjëf euh, Oustaz jërëjëf Charles euh, René Fall moom moo nekkoon ci côté technique bi ak ki nga xamante ne moom mooy ajaratu Penda Diallo Guèye chéri tonton Adama ñi ngi lay fóon bu baax a baax jërëjëf lui moom moo nekkoon ci caméra bi àndoon kook ñun ci subaak léegi waaye El Capo Babacar moom it mi ngi nekkoon ci caméra bi jàkkaarloo ak ki nga xamante ne mooy Babacar Lo Babacar ñi ngi lay ziar bu baax a baax ak suñu jeune frère bi di ah Keba Keba yow it ñu ngi lay ziyaar bu baax a baax mi ngi woon ci caméra yi jaa ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi nii la ñu àndayoon ak yéen ci subaak léegi di leen jox rendez-vous vendredi prochain